Euh, si champion bi nga xam ne dafa war a bëri combat spécial si diggante Balla Gaye Bombardier le premier janvier muy Niang bu Ndaw Niang ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di nuyu wala may nuyu kenn xam ne damay nuyu sama papa suma lépp maam coono borom daaru noonu di nuyu waa Sikóor yi yëpp di leen bëggee bu baax di leen nuyu bu baax di ko teg ci loxo no SRS Aba waaw di ko wax maa ngi nuyu Baye Daaru yëpp yëpp yëpp di leen wax seen doom seen lépp. am na la. ay keesi keesi boisson la fii ak ay ndox ak ay ordinateurs lépp la fii ak ay mas ñu koy sant di ko gërëm moom 100% Pikine la te kenn mënu ko see génne. parce que sëñ Touba Mbacke lay borom. kii nit la. kii nit la taxal suñuy lépp a fi moom lañ ak ñoom soog ak mun nañ comprendre ñeneen ñi si dëkk bu ñu ñoo comprendre. suñu Pikine rek lañ am. ñun Pikine rek xoolal jeunesse bi bu ñu bëree bu ñu amee combat jeunesse bi ñooy ñëw kon tey bu liy soxlaa ñëpp a war a ñëw amuñu lu dul Pikine barke sëñ Touba Mbacke amuñu lu dul nag mën nañ ko comprendre parce que mi ngi Europe xam nga ñeneen ñi ngi pare combat mais ak dafa war a rafet barke sëñ ay ngi le Ah, ah. ah. yaa ngi def loo miin le fuural du roi des arènes. casador bala ca fuural bala ca sikkin bala mbër la war a mbër da ngay téye la lay boot d'argent la lay bakara waay taskin bu rambax te xolle sulay bay fal bi <laughs>